déglu dal leen ak jàmm tey ji julikaay bii di Sud Quotidien ab taxaw seetlu la daal di def jëmale ko nag ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama fii ci mim réew seen tolluwaay ak tamit yan jafe lañ ci jànkonteel julikaay bii di Sud Quotidien daal di ñuy fàttali ne barke Demba Ndiaye doon màggal bés bi nga xam ne nag dañu ko jagleel lépp lu jublu ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama fii ci mim réew suñu naataango yi ñu ngi ñuy xamal ni Mamadou Saliou Sow moom mi nga xam ne nag moom mooy secrétaire d'État auprès du ministre de la justice daal di ne xamle ni ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama nag gis nañu daal ne réewum Sénégal nag teg nañ ko fu kawe maanaam daal ab priorité la euh, ci gouvernement wu réewum Sénégal ndaxte daal nay fësal yenn ci ay kuréel yoo xam ne dañ ko fi teg ngir rek ñuy saytu lépp lu jublu ci wàll gi ni fexe daal ba gën a dëggal euh, wàllu ak ak doomu aadama wante ki nga xam ne nag moom mooy maître Assane Dioma Ndiaye moom daal dina le ni fi nga xam ne de moom mooy ji suñu réew nag lépp lu jublu ci wàllu ak ak yelleef am na yu bëri yoo xam ne nag dañu koy euh, jalgati Sadikh ñas di ko ci feelu di gis nag ni tolluwaayu ak ak yelleef doomu doomu aadama war naa mun a weesu sax euh, fa mu toll nii nag fii ci même réew Babacar Ba jiite forum du justiciable daal di gis nag ne fii ci biir réew mi daal ñu ngi saytu bu baax a baax lépp lu jublu euh, ci wàllu àq ak yelleef doomu aadama même su fekkente ne sax war nañ kaa gën a mun a ful APR autolikay bii di Vox Populi daal di gis nag ne fu mu mel ni daal pëcc xoogu métti nag moom moo fa am ndaxte lu weesu nag xeex gu tar goo xam ne nag moom moo am ci diggante ñi ngànk parti boobu daal dinañuy gis tamit ñi ñuy tuddee ay de la première heure ñoom i xam ne daal ñoo ngi koy faral di ñaxtu culikay bi di Sud Quotidien sax seq ci waxtaan ak euh, professeur Moussa Diaw nekk jàngalekat euh, ci université Gaston Berger bu Saint-Louis moom daal dina gis nag ne ci biir APR ñi nga xam ne nag dañoo jóge ci yeneen parti a jox euh, nekk nii moom dafa jaxasoo ndaxte bëri na nag ay kàddu ñaaw yoo xam ne daf fay jip te nag mi ngi nekk nag euh, ci diggante ay kàngaam yu bokk ci biir parti boobu suñu naataango yi sax ña ngi cee joxoñ baaraamu tuuma kii di Moustapha Cissé Lo ak tamit Yaxam Mbaye nga xam ne nag moom mooy Farba Ngom journal bi di tey jii moom ngay ñëwaat ci koppar yi nga xam ne nag nguurub Sénégal dugal na ko foofu nga xam ne nag moom mooy ci diwaanu Thiès te xayma yooyu nag ñi nga xam ne de ñoom ñooy waa ARD agence régionale de développement ñoom ñoo ko daal di fësal ginnaaw bu ñu daal di génnee ngir xool daal koppar gi nga xam ne nag nguurub Sénégal daal dina koy dugal foofu nga xam ne nag moom mooy ci biir diwaanu Thiès koppar googu sax ñu ngi ñuy xamal ne ci diirub juróom benni at toll na nag ci deux mille milliards waa nit ñoom it daal dinañuy fësal seen rapport jëmale ko nag ci tolluwaay réew mi noonu sax la ñu daal di gisee ne réewum Sénégal nag place bi nga xam ne moom la jël fii ci biir Afrique dafa daal di néew ci àddina wërngal kap nag loolu moom kenn waxatu ko ndaxte rapport boobu dafa daal di fësal daal ne wàllu ndóol moom dafa sax torop fii ci biir euh, réew mi les échos di ñëwaat nag ci benn opération coup de boo xam ne nag takk der yi dañ ko doon amal ca caaro Italie Madi foofu nag dañ fa bëggoon teg loxo koo xam ne dafay jaay drogue wante cuurikaay bi di Les Échos mi ngi ñuy xamal xam ne nag ñoom ñooy takk der yi ndaxte nag amaat na yeneen ñoo xam ne nag dañuy jaay drogue ñëw doon xeex ak ñoom ba nee nañu sax dañoo daal di tocc bakken ak ak policier yi ndaxte laas yéenikaay ñuy xamal ne démb benn policier boo xam ne nag agent de la circulation moo daal di xaru ci rond point Sandaga cuurikaay bi di 24 heures duñu nettali sax mbir ya na mu demee ndaxte mi ngi ñuy xamal ne policier boobu dafa dem daal di ab ab ciseau ci ñi bi nag ba loolu sax moom moo ko mujjee bi di 24 heures di ñu xamal sax ne laata loolu bi ca taxi ga mu duggoon daf ko doon wax mu abal ko ab paaka policier bi daal di lank ba tëdd ci naaj bi coolikaay bii di 24 heures di ñu xamal ne yónni nag police scientifique ngir ñu ñëw daal di xool ba xam lan moo waral policier boobu daal di def li ni mel jeexale ko nag ak wàllu lamb ak yéenekaay bii di sunu lamb tey jii nag ñu ngi ñuy xamal ne combat revanche ci diggante Bombardier ab Eumeu Sène nag am na benn promoteur boo xam ne fi mu nekk nii nag ma ngi koy dox ki nga xam ne nag moom mooy Max Mbargane nekk manager bu bees bu Bombardier daal dina xamle ne moom ki nga xam ne nag moom mooy Serigne Dia Bombardier pare na ci wàllu gi ni mel Lan Diang moom mi nga xam ne nag moom mooy agent wu Eumeu Sène nee daal ñu ngi xaar nag promoteur bi daal di ñëw waxtaan ak ñoom bu boobaa dinañu tontu jëmale ci wàll gi ni mel lii ma nekkoon box jullikat yi li gën a ci biir jullikat yi ñu leen di ñaanal njaxte